ولد غير ذاتي الأقدار وتنتهي لكسر الأقدار الحمد لله رب العالمين خيوم السماوات والأرض نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستعين به ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على من أرسله رحمة لجميع العالمين وكافة لجميع الخلق سيدنا ومولانا محمد المكين سيد الجن والبشر وعلى آله وأصحابه وخلفائه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى بقية آثارهم إلى نفق سور ورضي الله عن جار البديع وعجب الكون مولانا أحمد القديم الذي هو رجاؤنا وقدوتنا وغوثنا في هذه الدنيا وتلك الأخرى الذي قال إن سبع السنين التي مكثتها في كونغو ما داعت وسيزر ذلك يوم تبلى السرائر ما خدعت ربي في عبوديتي ولم يخدعني تبارك وتعالى في ربوبيته من صدق وعده وحسن جزائه ولكن الدنيا ليست بدار الجزاء innama sha'nu fil axira mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ni ñooy topp seen seen YouTube Gaydel TV ci seen jataayu bopp jataayu Mudu Saadix nga xam ni seen bokk Abdoulaye Thiam moo koy defal del siwaat nañu ci jataay bi fas yéene waxtaane li nga xam ni moo xew di jàmbat muy màggal Tuuba tukkib Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne tukki woon na ko ci réewi Gabon ak Congo tukki barkeel boobu nga xam ni moom laa ubbee léegi mu wax ne moom Sëriñ Tuubaa waxoon doomam ji wax semoonu Bachir ne ko Bachiru da nga xam ne juróom-ñaari at yi ma def sax ko ci réewi Congo ak Gabon ne du ma sa réer du ma sa saay mukk du sànku it sëñ Bachir waaw kon kañ muy feeñ mu ne ko suñu borom dana ko feeñal soo ëllëgee bis bi sulli mbóoti bis bi nga xam ne ku ne léegi doon nëbb dañ naan ko bàcc ñëpp gis ko ne ko bis boobee léegi yàlla naan bàcc sama juróom-ñaari at yi ma def ci géej gi ak lu teg ak li ci juddoo ci ngërëm ak njariñ ñëpp gis ko ci bis ci yàlla ma ni ko li waral lool nag mooy waruma sama boroom waruma ko ci ni ma ko waxoon li ko waxoon ci aalmu ne ko soo ma wàccee ci kaw suuf dinaa la jaamoo nu la kenn mës sa jaamoo mu ne ko waruma suñu borom maa xadaatu rabbi fi ubudiyati waaye it moom suñu borom tabaaraka wa taala naxuma ndax ne woon na ma bu ma wàcc ci kaw suuf moo may tërbiyaal boppam moo may taxul boppam loolu it suñu borom naxuma ni mu ko waxee ci xasaayit ga rek wajjatu kulliyeza rabbaniya naafiul wahaabu ashkuruhu maa dumtu hayyan bi qawli alhamdulillahi sëñ Tuubaa nee na yàlla mi nga xam mooy aji dund di aji jariñe yàlla moomu moo ma yar ba maa gën a yor ci nit ñi noonu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe woon rek addabani rabbi fa ahsana ta'dibi sëñ Tuubaa ne nag suñu borom naxuma ci lim ne ma woon dinaa la tarbiye wala mu yaxdaani tabaraka wa taala fi rububiyatihi lépp nag mu ne ko mu ngi tukkee ci yàlla dafay koo xam ni laa yuxliful mi'aad du fausse rendez-vous lu wax dana ko def waaye mu tukkee tamit ci suñu borom dafay buur boo xam ni ku rafet aw fayin la loo jëf lu mu rëy rëy bu la rek nga rus mu ni ko waaye Basiru mu ni ko Mbàkke mu ni ko walakini dunya laysa bi daal jaza innama sha'nu fil axira da nga xam ne kër àdduna gi du këru fayantoo waaye mbir mi alaxira la loolu li suñ borom waxoon ci alquran la suñ tubaab dellusiwaat yi wal axiratu xayrun lil muttaqin alaxira moo gën ci ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla kon tukki boobu lañ fas yéene waxtaanee waaye balañ ciy dugg daanu fàttali tuuti rek ci njëkk Sëñ Tuubaa di feeñ ci réew mi ci Sénégal nu réew mi meloon Sëñ Tuubaa njëkk mi feeñ réew mi ci Zaïr jamono ju jamono ju doy waar la jamono ju yéeme lawoon ndax jamono nguur la woon ak jamonoy ndamu jamonoy naxaate jamonoy jaay doole alxuraan sax daanañ ko wattu naam waaye dañ ci daa boole lu ci bokkul di ko pukkarante di ci wutante daraja waaw naka noonu ñu ci jabarante di ci liggéeyante xam-xamit amoon na waaye daawuñ ko jàng ngir yàlla sunu borom dañ ko daan jàng ngir bëgg daraja pukkare loolu bu nu seetee sax Euh, Serigne Moussa Ka radiyallahu euh, anhu tënkal nañu ko ci jizaaw shakur ci baydu baydu yéeme ni mu ko waxee rek ne nee dogoon dem gi wolof nasaraanu tukkun bi lay ñëpp dem niiraanu lool sax daan ñu siwaat ci waxtaan yi di ñëw ngir booba doomi soxna yaa ngi kaanu di dagu seefi yi wuuri faf nasaraanu ñoo jaxasoo kàngami ak nasaraan yi ñii defi xaadi ñii di ànd ak naar yi yi doomi soxna sampi dara daldi di sampi ya ci dongo ak jigen ñu melni sara sire siri mu and ak sara yendo ciao ndaw jaxaso bambara rafat ak ciao serigne ci and ak wuri yi faf di daane ñëli di dox di foon ñëlay doxaani ñëlay di wañlu ñëlay bandani ñëlay di tariax ñëlay wañani gor ñe jigen jaxaso di chaxan lamb yu gor sabar yep jaxan kenn amatul khasdun manam ak jublu kenn amatul khasdun li wacc kaanuge foore fafde jaanillahi islam jo yëkkat ba génn gàddaay sowu jant fépp mel ni lambay Cheikh Bamba daal di ñaan ci barkeb jiili ne yàlla maay safion kulu jiili maay xaadimul rasulu fi sudaani maay rabu xarnu bi ani niiraani kon jamono bii mala wax léegi ci la Cheikh Ahmadou Bamba feeñ circonstance yu mel nii muy atum charaa charaa lakum diini la sëñ Tuubaa feeñ muy atum junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa noonu ko Ousmane Fouti wa at-Talari yi waxee wulidal xadimu man xat charaa chariatal ama charaa at moomee te boo buñ seetee charaa dafa dàmbee maqaamam juróomi yonent yi nga xam ni ñoom la yàlla tude ulul azmi muy sayduna nuux sayduna ibrahim sayduna musa sayduna isa ak sayduna muhammad sallallahu taala alayhi wa noonu ko alquran waxe waxe shara lakum min diini ma wasa bihi nuuhan wa ibrahima walladi awxayna ilayka wa wasayna bihi muusa wa isa an aqimu diina kon sëñ Tuubaa bi muy feeñ jamono ci maqaamam juróomi yonent yooyu ci la feeñ jamono muy ulul azmi loolu sëñ Musaa Ka indi na ko ci xasida gi danañ ci ñëw mu feeñ ci at moo xam ne at mu yéeme yéeme la ndax xam ngeen sëñ tubaa dafa wax ne bokk na ci li ko tax a ñëw ci jamono mooy yeesal diine lislaam loolu moo xool sëñ Baara ñang ne ko Baara xam nga lu tax a ñëw ci jamono mu ne ko déedéet mu ne ko yeesal lislaam ak xeet li mbindeef yi lislaam ak xeet li mbindeef yi loolu sëñ Tuubaa wax na ko ci yu bari ci ay mbindam yu bari waaye xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ci hadis boo xam ni muttafaqun alayhi la inna allaha sa yabaasu li hadihi l ummati ala rasi miati kulli sanatin man yujaddidu laha diinaha xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ni yàlla dina yebal ci bépp penkitel téeméeri at koo xam ne day ñëw di sal mbirum diine ji ci xooli doomu aadama yi xam ngeen diine moom du màgget waaye xooli doomu aadama yi mooy dem ba xumaag dem ba lëndëm dem ba bidaa fees ko dell su ko defee su matee téeméeri yàlla yebal koo xam ne day ñëw salaat ko ci xoli nit ñi xam ngeen ni ni ko mu arrixoon yi jàngale ki njëkk nekk euh, mu ginaaw ginnaaw bu ñeenti wàccee liggéey ba am téeméeraat mooy Omar ibn Abdul Aziz mu ragal yàlla mu baax moomu te tedd ak la ci xew lépp ba ni nga xamante ni juróomeelu téeméer bi ci la al imaamu Xasaali feeñ nga xam ni mooy mu mu jaddidul mi at xaamisa ginnaaw bi imaamul Xasaali nag feeñee ba wéy digënté bi mu aari xuna yeeg borom xam-xam yi ak gëstukat yi gisaatuñu nemmiku waatuñu keneen ko xamni ñewna ñëw na yore charte mujadid ba ni sëñ Tuubaa ñewé xam nga mujadid euh jalaluddin asyuti wax na ko ci téréem ba wa shartu fi dhalika an tumdil mia wa huwa ala xayaatihi bayna alfia wa an yaumma ilmuhu ahla zaman wa an yakuna jami'an li kulli fan wa an yakuna fi hadisin xad rawi wax na ni charte mujaddid mooy ki ko war a nekk buy feeñ buy am fanweeri at di dugg ñeen fukk day fekk téeméeril bi jeex jeex jeex takk maanaam téeméer bi jeex ba bii di doog a tàmbali boo xoolee sëñ Tuubaa charia la feeñ charia di ñaar at ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk boo ci tegee fanweeri at day nekk ñetti téeméer at xam ne sëñ bi muy am ñaar ko juróom-ñeent ñaar ati juróom-ñeent ci la way juróom wàcc sëriñ Moor Anta Sali muy ama chas ci déwén sa ci déwén sa di ama achas mu am fanweer at sëkk ci ni ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk Mbàkke Kajoor ne ko euh, sa borom nee na nga yeggale nit ñi ci yàlla te bañ a yem jàngalem kese ni ñu ko fi waxee wax nañ ko fi ay yooni yoon yooni yooni yoon safaha ni rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi bi qawlihi rabbi ashabaka bi himmati بالهمة ولا تربيهم بدرس فقط إلى آخره إلى آخره كن لولو جلال الدين suyuti wax bi seigne touba di feñ da ca yam kep ndax atum ñaari junni ak ñaari témèr la feñ ak juroom ñaar fuk bi mi am fanweer at di tambali xarnu bi di asas nga xamni moy tambali xarnu bi ci la ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam feñu wax ko lim ko wax kon te lolou seigne touba moko deugalal bopam mo wax ne ujaddidu sunnata xiina kaada tumiituha du jan xawat an kaada sëñ tubaa nee na li ma fi li ma fi indi mooy yeesal sunna sunna si nga xam ni mu bidaa demoon na ba ray ko ba nga xamante ni kenn dundatul sunna yàlla yebal ma nag ma ñëw ngir yeesal sunna waxaat ko ci xase ay ñim tënke lillaahu alquranu jibrilu muhammadun muhammad mu tàmbalee ko ci laamu gi lil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahul garra wa inni ahmadu ma ne yéene naa yeesal sunna su si nga xam daa daa weex tàll set wëcc te ñu tilimal ko ngir lënd mi bidaa ma ñëw na ngir yeesal ko ba xasi da ngay jeex mu tëje ko lool diinun si waa islaamihi laa yuhmadu inda al ilahi wa bihi nu jaddidu diine judul lislaam yàlla du ko sant diine jooju nag moo nu tax a dikk yeesal ko moo nu tax a dikk wala gis wax na ko wa bi jiddidi sabil bila aidan aw alamin dama fas yene yeesal yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te violence du ca du ca bokk gannaay du ca bokk xam seigne touba def na jihad ji ba yeggal limi wax ni ila allah bil bil muhtari sayriyan taha dox bobu nga xamni dox nako bam jeex yorul puso sax sah ko won lañ set sax ko won nak di yor ngannay kon lolou moy li fi indi won serigne bi kon mu feeñ ci jamono jo xamni nak nag circonstance yi mel ko waxe li mo xewon ci jamono ji euh bim feñe mom serigne touba ni serigne bassir waxe wulida rabbaniyan khulikha wa wulida rabbaniyan neena dafa feñ jamono da ngeen nek rabbaniyu rabbaniyu mooy koo xam ni ku dul yàlla amoo ci mom ab nek kok sunu borom nek nitu yalla nitu yalla pire xamni ñenti ni yi nga xamanteni ñooy gàllankoore taxuñu ko fenn musuñu koo laal fenn muy nashhadu an nafsu wa shaytaanu wal hawa wa dunia bakkan shaytaane bànneex àddina kenn musu cee jege ci Ahmadu Bamba Xaadimu Rasul du ak ruuxam du xolam du jëmmam loolu li ko waral mooy dafa nekk rabbaani yi ni ko alxuraan waxee kunu rabbaaniyiina bimaa kuntum tuallimuuna al kitaaba wa bimaa kuntum tadrusuuna kon mu feeñ ci jamono jooju yàlla def ko def ci moom jikko yu mat def ci moom moom melo yu mat ngir ne am mbir mu rëy moo xam ni moo borom wàcce ko fi moo xam li ñu tuddee alamaanatu kubra alquran wax ko Muhammadu Muntaxa doon ko leeral bu yàggul xam ne nee na kenn mësu koo yëkkati ba attan ko bi sëriñ mi ci la ko yëkkati teg ko ci digg boppam dem ak moom loolu mooy inna aradna lamaanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insanu innahu kaana zaluman jahuudan nga xam ne amaanatu kubra boobu nga xam ne ñëpp dañ ko fee wóoy waaye bi sëñ Tuubaa ñëwee ni ko cas dem ak moom bi ko yàlla di waajal nag ngir amaana boobu def ko def ci moom melo yu mat moo tax sëñ Tuubaa nekkoon nit ku maadu da ca dayo ba lool nekkoon ku sawar lool moom sëñ Tuubaa nekkoon ku amu yëg ku am itte moom sëñ Tuubaa bëgg yonent bi sallallahu lool tax ko jàng alxuraan ni mu ko waxee wal tuddim lii tilawatan wa qiyaman fi layaali wa man shuuni noonu la ko ñaanee ci boromam saxoo jàng alquran ci guddi yi taxoo tagg yonent bi salallahu alayhi wa sallama di taalif ngir yee mbindeef yi ak génne leen ci lëndëm mu réer ak ni ma ko waxee sànq ngir yeesal sunna si yonent bi salallahu alayhi wa xam ne téere yu bari yoo xam ni mag ñu baax ñi taalifoon nañ ko ci diine ñu ñëwee yooyu yëpp ko yeesalaat def ko way niñ ko xamé du aaje ñu ci jaarat ba nit ñi ko jariño señ tuba Tuubaa nekkon ko xamné euh daan digle lu baax ca sax ci nak di téré lu bon di xet li mbindeef fi nekkon ko am yermandé daan tërbiye ñi nga xamné ñom la ko suñu borom taala di len xamal ko ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni suñu borom moo ko wax mu nekk xadisul qudsi aarifuni xabla an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni mu ñi àndoon ak moom yëpp ci yoon woola leen jaarale mu nekkoon ku gën a xam ñëpp yàlla gën leen ragal yàlla gën leen a wéetal yàlla jël mbir yëpp jooyal ko sunu borom tabaraka wa taala nekkoon ku dëddu àdduna moom sëñ Tuubaa nekkoon ku bañ nasaraan yi ngir bañ gi ñu bañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nekkoon ku woyofal alal li nga xam ne moom la nit ñi gënoon a bëgg moom moom la gënoon a woyofal muy alal nekkoon ku bëgg alxuraan ci dayub dayub cofeel nekkoon ku mën a muñ tey muñ le nekk ku ñeme ci amu fit nekk ku am ngor niwi nelaw lool daaw ko def sax daanaka amul musta am lal ci biir këram kees gu masa am musta am lal boo xam ni pour nelaw la lal bu mu am kay alxuraan lay teg ci kaw di ci sotti parfum melokaan wii moom la sëñ Tuubaa feeñee jamono bi mu feeñee it ni ma ko waxee léegi yàlla wuutale kooku waa jamonoom mu nekk ci melokaan woowu jaar fi mu jaar yëpp jaar fi mu jaar ci digganteem ak ñaari waajuram nga xam ne sëñ Tuubaa nee xaqi waajur amee na ma ko samay waajur topp naa leen na ma leen war a toppe ba texeel leen tàbbaleen aljana ni mu ko waxee wa jihli waalidati wa waalidi karaman wa an yajzihima xayran bi tamzini ba ni ma la ko wax sànq bi muy am fanweeraat ci la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam feeñu wax ko mission bi wax ko li ko tax li tax ñu indi ko ci jamono ji mu wax ko ko xamal ko it mbindeef yi xamal ko it li ci xoli mbindeef yi xamal ko it wi nga xam moom lay jaar ba tarbiye mbindeef yi àggal leen ci yàlla loolee ci la ne jaar fi mu jaar ñëw Mbàkke Bawol du aji ñi jaar ñep xam nañ ko ñew daru salam nek fa ñaar at joge fa sañ ci dekkam bi nga xam ni mooy Touba sa Touba go nga xam ni juroom ñaar at rek dafa dekk del ci watu fa ba ni mu wacce liggey ci bir bu nekké Touba nak xam ngeen ni ci la nek nak di wajal yoon wi sëñ Touba ba wax ne bi mi ci ama asas ci la ko sunu borom tabaaraku taala xamal ne da nga tukki waaye xamul woon tukki bi ban xeetu tukki la xamul woon tukki bi naka la nan la xamu ko woon noonu ko waxale boppam ci xasida gu gu yéeme yéeme yéeme goo xam ne daf ko taalif ci leeral fi nga xam ne moom la jaar ci e, tukki bi yoonu géej gi nga xam ne naar boobu ko ko laajoon mu di ko tontu da caay nag bay du yéeme yéeme yoo xam ne daf ciy leeral maanaa e, yoon wi nga xam ni fi la jaaroon mu wax moom sëñ Tuubaa تيتيري بني أول مبتدا به القديم تعلق بمن له تقديم وأظهر القدمة عام جاشسي وقلبه أضمرها من أساسي سنتو بعني أنا بمني برد بمجيك رفرك موجل لب لبم أجكو تسنو برام تبارك وتعالى بيك خبني موي جيتو تموي كوكو صوب أي جامم نانا نكت yàlla feeñal na nekk gi nga xam ne nekk na nekk na ko xaadimu rasul sallallahu taala alayhi wa salama ci at mii ñu xam muy ama Jesus mooy 1313 waaye nee na ci 1301 nee na suñu borom xamaloon na ko ne ko di nga génn réew mi nekk xadimu rasulillahi sallallahu taala alayhi wa salama moo tax sëñ Tuubaa nee na bi mu duggee ci rek ci at mi nga xam ne ci la war a génn réew mi ci lañ koy takkal tam garaat boobu yi nee na at moomee nag ci la summeeku ci lépp loo xam ni nekkoon na ko ji xeeti wird xeeti jaamu yàlla xeeti aada lépp mu summi ko daal sol mbubum nag aju ci yàlla tabaraka wa taala fas yéene liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko muy wasilaam ni mu ko waxee baana li kulli man lahu maaqulu anna wasilati huwa rasul moo tax mu wax ni mun salixan fii jay sosin min xayri rabbil wara xadimu xadimu usni xayri sëñ Tuubaa nee na bi mu demee ba ci jay sosin nag ci la summeeku ci lépp loo xam ne nekkoon na ca fas yéene nekk nag xadimu rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallama xam ngeen ni sëñ bi nga xamante ne nekk na Tuubaa almaharusa di dugg xalwa di dugg xalwa ngir lii nga xamante ne moom lañ koy xoymet te mooy yoonu géej gi nga xam ci la amee lépp loo xamante ni kenn ku fi mas a jaar di liggéeyal yàlla amoo ko mu nekk na di ñaan boromam nag ngir loola gaaw da lu nek lim nek touba waham, def khasside yo xamne da ki def ay engagement khasside jayante digeunte ma yonnati bi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba nga xamne duggu nañ nak ci ama jesus bi duggé ci ama jesus nak xam nga ama aisha sax ci la ñëk wax ni zaliltu abidan khadiman lirrasul min ami sin ila amir rahil ama aisha xam nga ci la ñëk gisé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci ginnaw rido bu boo xam ne da séen ki ngay séen mais doo mën a agsi moom loolu la def ci xolam maru xundooñ ak xiif goo xam ne xiif na ko yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu yeesalaat ab liggéeyam yeesalaat ak tuubam yeesalaat ak xidma bi mu doon def ci yonent bi sallallahu alayhi ak julli ci moom ak di ko tagg ba buñ duggee ci ama Jesus ci weeru koro wi ni ko sëñ Abdoulaye nettali ñëpp xam nañ ko dañuy fàttaliku rek waaye ñëpp xam nañ ko bi mu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa nag nag yàqatatan la maanaam mu gis ko nag mu ànd ak ñi nga xam ñom la andalon taxul diine l'islam lolu si lolu mu wax ci khasida ga rafa ahlu badrini islama wa zahzahu zahul fujara, wa zalama mbolo momi nak la yonent sallallahu alayhi wasallam andal ñetti témer nit ak fukki nit ak ñett ñu jaayante la ñu jaayante euh, xam ngeen ko du aaji ñu ci jaar ban ko jaayante nak ci la dal di génn touba nak dem togi Bakke bari ginaa ba ko yonent bi salaa salaam xamale ni dekk bi mom yalla aar na lako ba nopi dara lu la fekk faaw nga génn ko bi mu ba am juroomi fan ci la taxo Touba dem Jolof bakke Bari togi fa fofé nak mom sëñ Fàllu nee na am na fa ñenti wér ak lu top di duggu xalwa seigne Moussa Ka wayna ko sax ba mu amee juróomi fa bari di duggu xalwatu di ñaan lil bari seytaane dem lu xare ko nasrani ne len jihad lay fexé fi Sudan yi nak bisun borom di nangu ñaan gi nak moo tombeeg nag yàlla tabaraka wa taala ci boppam xam ngeen ni yàlla moom lu mu nar rek dana ko wutal sabab sëñ Basiru nee na wa iza aradallahu amran hayya lahu asbabu yàlla su naree mbir da koy wutal ay sabab nga xam ngeen ni nit ku ñuul dafa nekkoon ko xam ne mënu a am gaal wala bato boo xam ne dana ko mën a génne réew mi ci jamono yooyu ndax jafe na lool sëñ Tuubaa nag moo tax mu doon ñaan yàlla jàpp ndal ko waruwaay wala moyen boo xam ne dana ko mën a génne réew mi mu dem ci réew yu sori yooyu pour mën a joxal ab liggéeyam ak ngir a mën a am ndam lu rëy li nga xam ni moom lañ am tey moo tax bi yàlla nangoo ñaan gi rek ci la daal dugal ci xolu nasaraan yi ñu wut bato transporté ko jënd ko réew mi ñu mën a defi ab liggéeyam loolu mooy moom la naan wa adxalal ilahu fi qulubi man tasabbabu fi naqlihi zaka zaman ixrajahu ilal biladi naiya wa naala fiha fawqa sami saariya nee na yàlla ci boppam moo dugal ci xolu nasaraan yi ñi nga xam ne ñoo sabab lu yoonu géej gi wut ay euh, bateau dugal ma ca toxal ma ci boobale jamono ñu ama ah, jay si sin yóbbu ma génne ma yóbbu ma ci réew yi soriya ma am fa raw déggu saariya loolu ñëpp xam nañ ko waxewaat na ko neneen sax nee na baana li kulli man law hëja anna rasul salla alayhi man bi yahbu bi suul sayrani ilal biladi naiya wa xaadali mux ji la sami saariya sëñ tubaa nee na ku am xel ku ne xam nga ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo fi jëlee ca ama jay si sin yóbbu ma ci réew yi jox ma fa lu raw lu rusloo déggu saariyatul jabal kon mbokk yi xam naa ni xaaj bu njëkk bi foog lañ ko yemale bu ko defee buñ del siwaatee nag ñu doog a dugg nag ci eh, départu sëriñ bi su ko defee ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaanal sëriñ Xaadim Lo Gaydel moom sëriñ Moustapha Lo moom sëriñ Mawlu sa yàlla yàggal ko fi itam ànd ak wér di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy sëriñ Tuubaa ci jamono yàlla yàggal ko fi lool te ànd ak wér ba lépp loo xam ne yéene na ko taalibe yi yéene ko ummatul islam yi moo def ko ci coobareem السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شاء ما لهم زمن